ginnaw bi nga xamanteni ay xibaar yu leer te dëggu la leen di jox sa su ne fiñ koy tambalé nak dañuy dem feulé ci France suñu né France nak ginnaw lolu xam ngeen li di cinquième édition muy séminaire suivi intergouvernemental bi war a dox ci digënté réewum France ak réewum Sénégal mom mo fa am ginnaw lolu nak ki nga xamanteni moy premier ministre du Sénégal di Amadou Ba mi ngi foofa ci France ginnaw lolu nak daje na ki nga xamanteni mom lañu Elisabeth Borne ni jëm ci walu coopération bo xamanteni moy dox ci digënté Sénégal ak France ci mëne ba nak waxtaane nañ fa lu bare lo xamanteni ginnaw bi nga xamanteni ni échangé nañu ci ay kàddu yu bare yo xamanteni day suqali coopération bi nga xamanteni mo dox ci digënté ñaari réew yi di France ak Sénégal

intergouvernemental la France ak Sénégal muy entretien bilatéral bo xamante warna indi ay effort jamono ji jëm ci ay waxtaan yo xamante sen feuille de route suñu sukkandikoo ci séminaire bi mujj nga xamante tenir nañ ko juroom ñetti fan ci weeru décembre bi ñu passé suñu xolé les lepp lo xamante mëna consolider consolider lepp lu jëm ci walu dynamisme suqali coopération bi diggante Sénégal ak France muy ñaari parti yoo xamante ni salué nañu li nga xamante ni mooy niveau stratégique jëm ci coopération boo xamante ni mën na structuré jëm ci ay belles perspectives sukkandiku ci plan économique bi sécurité bi ba noppi relever lépp loo xamante ni dafa jëm ci intensification bu soxal coopération sportive ba noppi daal di sukkandiku ci ay perspectives yoo xamante ni lii di Jeux olympiques di JO 2024 bi nga xamante ni Paris ak yeneen Jeux yoo xamante ni Jeux olympiques de la jeunesse la muy JOJ boo xamante ni day am atum 2026 fa fii ci Dakar Ndakaaru ba noppi ni plan plan bilatéral bi premier ministre du Sénégal M. Amadouba ak madame Elisabeth Borne bu réewum France ñom ñaar dal ñew nañu saluer li nga xamante moy qualité dynamisme coopération diggante ñaari réew yi indi ben volonté bo xamante ay forte consentement moy réaffirmer lepp lo xamante jëm na ci ñaari chef d'état yi pour ñu consolider sen relation multisécuritaire ko ci sen amitié manam sen xarito ak sen fraternité diggante gouvernement bi ak ki nga xamante moy peuple sénégalais ak peuple français ñi jël ay mécanismes yo xamante ni na soutenir li di coopération bi jëm ci ñaari réew yi nga xamante ni ku ci nekk ci ñoom ci jaaree ci agence française de développement ñu dippee ko AFD ak li nga xamante ni mooy ay financement yoo xamante ni dafa porté wu ci ay divers projets jëm ci lépp loo xamante secteur prioritaire la suñu sukkandikoo lu wàll jëm ci wàllu mbay bi hydraulique bi jëm ci wàllu santé jëm ci wàllu énergie jëm ci wàllu éducation ba ci sport bi ak li nga xamante ni mooy habitat ak ay infrastructures routières teg ci ay infrastructures ferroviaires jëm ci benn développement boo xamante ni développement rural lay indi ba tey ci titre yoy nga xamanteni ay investissement stratégique la li di rewum Sénégal jëm ci ben secteur bo xamanteni ay infrastructure am yo xamante daf ko structurer jëm ci ki nga xamanteni moy premier ministre du Sénégal di monsieur Amadou Ba ginnaw bu mu delu se ci li nga xamanteni moy mise en œuvre lu jëm ci walu deuxième phase bi nga xamanteni mom lañu dippé train express régional ñu dippé ko pour rappeler wu ko dal lepp lo xamanteni ci datu 30 novembre atum ñaari junni ak ñaar fuk ak ñett fi ci rewum Sénégal signé won nañu ak ki nga xamanteni moy réewum France lu toll ci juroom fukk ak juroom benni convention jëm ci financement bi nga xamante ni montant bi suñ ko xaymaa dina toll ci ñaari milliards yu teg fanweeri million ak juróom maanaam suñ ko xoolee ci xaalisu euro muy xaalisu Europe ba noppi doon la nga xamante ni un milliard 541 cent quarante un lay doon million un. milliards virgule 4 lay doon maanaam ba chef du gouvernement du Sénégal bi daal di réjouir ci li nga xamante ni jëm na ci rétrocession bi nga xamante ni mooy terrain bi nga xamante ni IRD nekk foofa ca campus franco sénégalais ñu duppee ko CFS ci ginnaaw propos yooyu am nay objectif objectifs de développement yoo xamante ni tey suñu sukkandikoo ci diversification yi nga xamante ni tey formation mën na ko maintenir jëm ci benn but ñu former lu toll ci. 1000 étudiants donc suñ ci xolé fuk ñaar ont formation dina li nga moitié niveau bi master la ñom ba dominante numérique jëm ci ingénierie agriculture ak santé ba tay ñi ngi répondre ci besoin bo xamanteni la sur ci économie favoriser li professionnalisation l'employabilité, di employabilité bi nga nous avons aussi une stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal Amadou Ba il ci a des revenus, des pertinences, ay revenu la démarches sénégalais yi ñu ngi soutenir financement de l'AFD, AFD dina viser pour accompagner lepp lo xamanteni mise en œuvre de travers intervention bi nga montant global bi dina tollu ci millions d'euros, Nous mu doon ci duru ñetti at muy ba tey lépp loo xamante concerne na li nga xamanteni moy euh, préparation Jeux olympiques de la jeunesse moy JO yi nga xamanteni ni war na am ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom-benn fii ci Dakar ginnaw loolu salué li nga xamanteni moy état coopération sportive bi nga xamanteni marqué na notamment ben financement bo xamanteni ni. di agence française de développement maanaam sukkandiku na ci yëkkati benn montant bu toll ci quinze millions d'euros dans di leen koy jagleel ba tey suñu sukkandikoo ci ñaari chef du gouvernement yi ginnaw buñu ñu souligner lii di importance bi nga xamanteni accordé nañ ko jëm ci ay stratégie mu indi ay perspectives notamment suñu xolé jëm ci migration légale bi indi migration bi nga xamanteni ni main d'œuvre bi du dara lu ben programme bo xamanteni échange moo koy indi diggante France ak Sénégal ci coopération bi nga xamanteni ay portefeuille la yo xamanteni portefeuille yu téggu ci ay projet la qui dit M. Amadouba, du premier ministre de la République du Sénégal salue une importante séance de travail à qui nga Bruno bi maire du ministre français de l'économie et des finances avec une souveraineté industrielle et numérique qui qui qui ci présence ministre sénégalais des finances et du budget de monsieur Mamadou Moustapha Ba ñoom daal daal nañu gis ay infrastructure yoo xamante ni dafa sukkandiku ci transport terrestre jëm ci désenclavement bi nga xamante ni kii di monsieur Mansour Faye ak kii nga xamante ni mooy économie du plan et de la coopération kii di monsieur Doudouka Ka daal dinañ ciy profiter ba tey kii premier ministre Amadou Ba profité na ci rencontre bi nga xamanteni doxna ci digganteem ak ki nga xamanteni moy ministre français de l'économie des finances et des souverainetés industrielles numériques di monsieur Bruno Le Maire ginnaaw loolu nak mi ngi évoquer lepp lo xamanteni jëm na ci walu ay termes de coopération yo xamanteni financière lay doon diggante France ak Sénégal ba nopi dal ci yok ay projets phare yo xamanteni ci portefeuille yi nga xamanteni tay moy termes de coopération financière yi ba nopi dal di sukkandiku inscrire li nga xamanteni moy France ci walu plan Sénégal émergent émergent mu def objet bo xamanteni mise en œuvre pour satisfaire les projets xamanteni dafa jëm ci projet bi 3 muy programme bi nga xamanteni moy d'appui aux communes agglomération du Sénégal muy PACASEN ak li nga xamanteni projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes ak li nga PAVI FJ muy programme de développement économique local des et de transition agro écologique moy delta ak li nga xamanteni moy dépollution de baie bi nga xamanteni moy mooy moy projet de renouvellement bi xamanteni lepp luy collecteur de Hann mën na ko programmer ci urgence d'assainissement assainissement jëm ci walu urbain ba nopi indi aménagement intégré jëm ci voirie primaire yi ak li nga xamanteni moy réseau divers jëm ci pôle de Diamniadio bi ak bi projet nga xamanteni moy construction de 18 ponts ak autopont moy projet de construction bo xamanteni ben hôpital la moy la dantek ak li nga xamanteni moy train express régional diggante yenen ak yeneen ak occasion yo xamanteni ay rencontre qui a une perspective à court terme indi ci coopération bi diganté France avec les plots xamante aborder abordé nañ ko jëm ci focus sur di projet de résilience des écosystèmes du Ferlo ak li nga xamanteni moy projet de construction autoroute Dakar Tivaouane Saint-Louis ak lepp lo xamanteni suivre na ben programme d'appui, bo xamanteni budgétaire lay doon pour ñu stabiliser lepp lo xamanteni jëm na ci macroéconomique ci Sénégal ñu tollu ci 150 millions d'euros. mu doon lo xamanteni suñ ko xeyma dina tollu ci 98,4 milliards ñu approuvé ko wéru juillet atum deux bi ñu génn destiné ko pour ñu soutenir li di programme économique et financier li nga xamanteni moy appui bi nga xamanteni FMI def nako relativement suñu démé ci li nga xamante moy train express régional bi bouclage financier la deuxième phase bi nga xamanteni mo wara dox ci terre bi bu mu financement yi accordé nañ ko par ki nga BID ak ki nga à moy ba ak li nga BAD titres discussion

def na ko Sénégal ca Paris en décembre atum 2018 muy benn enveloppe boo xamante 1,5 milliard d'euros ñu xayma ko ci CFA mu doon 984 milliards de francs CFA ginnaaw bi ñu annoncé que nga xamante France en termes de nouveau engagement pour appuyer le financement du deuxième plan d'action prioritaire et ñu doutons ko PAP 2 que fille ci PSE atum 2019 ak 2023 ce suñu suñu ko même conjecture mondiale yi nga xamanteni le Sénégal engagé wu na ci atum 2024 ci benn aspus plus bi nga xamanteni budget bi xayma nañ ko ci 7003,6 milliards de francs CFA mu doon presque li nga xamanteni triple budget la atum 2012 date bi nga xamanteni ni le président de la République Macky Sall accédé à la magistrature suprême ginnaw atum 2024 nak dinañu gis ki nga xamanteni moy démarrage li muy exploitation pétrole ak gaz ak li nga xamanteni moy fort impact bi nga xamanteni ñing qui koy xaar ci ben secteur bi nga xamanteni tel que énergie lay doon jëm ci walu croissance économique muy li nga xamanteni ki di Amadou ak natangom bi nga xamante Elizabeth mooy Elisabeth Borne ci 5 cinquième édition séminaire du suivi intergouvernemental diggante France ak euh, Sénégal amal nañ ko fa batay suñu nemmoo ko ci li nga xamanteni moy 5 euh, cinquième édition Bobu batay ki nga xamanteni moy premier ministre euh, du Sénégal di Amadou Ba rencontre na aussi ki nga xamanteni moy premier ministre de France ci benn dynamisme boo xamante ni war nañ ci mën a sukkandiku ñoom ñaar ñu ànd ci daal di taxaw ba pare sukkandiku lépp loo xamante ni jël nañ ko ba tey mi ngi xamal ni que daal li nga xamante ni moo dox ci diggante. France ak Sénégal entretenir nañu ci weeru euh, décembre bi atum 2023 manam ci benn cadre de réunion boo suivi li nga xamanteni moy 5 cinquième édition sommet intergouvernemental bi mom moko waral batay ñi xamal ni que dal benn bulletin la bo xamanteni bureau d'information gouvernementale di BIC entretenir na bilatéralement ak ay efforts yo, xamanteni tay suñu sukkandikoo ci échange nga xamanteni feuille de route bi indi na ko ci séminaire bi nga xamanteni tenir nañ ko juróom-ñetti fan ci weeru décembre ginnaaw bi nga xamanteni gis nañu luy considérer dynamisme bi jëm ci coopération diggante Sénégal ak France muy ñaari parti yo xamanteni saluer nañu lepp lu jëm ci ben stratégie bo xamanteni tay tey mën na indi coopération bu mën a scruter ay perspectives yo xamanteni ni mën nañ ci am yaakaar ci plan économique ak li nga xamanteni moy sécuritaire. ba tay ci rencontre bobu suñu sukkandikoo ci titre investissement stratégique yi nga xamanteni état du Sénégal indi na ko ci secteur secteur infrastructure manam ñu ngi structurer jëm ci walu le soit ci mise en œuvre bi

objectif du dara lutul développement diversification ak lepp lu jëm ci walu formation bo xamanteni war nañ ko mën maintenir ci benn bi bo xamanteni dañuy former mille étudiants ci 25 formations yo xamanteni dinañ ko jagleel lepp lo xamanteni ni répondre ci ay besoins économiques dal di favoriser li nga xamanteni moy professionnalisation ak employabilité en tout cas muy li nga xamanteni dal moy 5 cinquième édition bi ñu dippee